waaw jërëjëf tout d'abord maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ci seet si bi ngeen ma seet si di nuyuwaat euh, euh, téléspectateur bu site euh, référence actu yëpp vraiment di am mbégte ak kontaan te janoog yéen pour échanger yéen aussi ci wàllu secteur du tourisme bi nga xam ne ci lay liggéey ba pare jiite. AFOR AFOR nag di l' association des professionnels de l' de la euh, jamono yu ñu weesu gisoon nañ la ki nga fekk liggéeykat yi fa nekk di xeex ab mbir euh, ce que mën nga ñëwaat ci la fa xewoon. waaw jërëjëf ki nga fekk place demoon toog sa bureau rek takk cravate climatiseur tiim la président. mooy ñi nga xam ne ñoo la wóolu jiital la bu ñu amee problème danga fay taxaw loolu mooy njiit loolu mooy euh, li ñuy xaar ci président bu ñu amee bànneex nga taxaw bu ñu amee naqar nga taxaw boo ko mënul it na nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla ku la interpellé ci question boobu dina xam ne ah comme demoon woon jour bii kat ki ah, li mu joxe comme argument comme mënul ko woon a doo dem maanaam lu mënul ñàkk moo tax du ma dem ci loolu bu nekkoon ba ba Matusalem dinaa jéem a def tout pour dem fa parce que dañ maa war la xewoon King Fahd Palace King Fahd Palace d'abord patrimoine national la mhm. sénégalais yépp ko bokk moom ko ñu joxoon ko à l'époque Starwood mu di ko gérer ñu dem ba ci biir Starwood jóge fa toog na mu fa jógee aussi liggéeykat yi ñoo ko xeex ba mu jóge fa ñu ne kat nañu jox gestion bi sénégalais ñoom ñëpp ñu applaudir à deux ñu ne comme se un sénégalais muy ñu préparé wu tey pour am une enseigne nationale ñu jàppale ko pour liggéey baat dafa kenn ko jox wax daf ne il préfère donner la charité à Sandaga qu'aux Champs-Élysées ñoom ñëpp ñu tàccu kontaan ànd ak moom di liggéey mais bañ ànd ak moom di liggéey dañu dem ba ci biir doxalin bañ doon yaakaar ci moom doxalin ba sooxe li tax ma àndoon ak ñoom nag mooy dañ ne nag ñooñu génnoon foofu ñuy plus de cent quatre-vingt-douze personnes dañ leen a yóbbu chômage technique pendant trois mois ñoom ñu ne leen ci ñoom liñ ma wax ñoom ñu ne leen comme ñun yóbbu ngeen ñu trois mois chômage technique am ñu nekk ci biir di liggéey et je ne leen ñi nekk ci biir liggéey boobu te ñun ñu ngi ci biti toog fi trois mois léegi ñooñu nañu génn ñun ñu liggéey nga xam ne day am relève ba pare dafay am benn roulement day am une relève am roulement maanaam ñi ko nañ trois mois génn ñi nekk trois mois et li li amul pertinence mooy pourquoi tey bi ñu ne nañu ubbiwaat hôtel yëpp ñoom ñu ne tey dañuy yokkaat chômage technique yeneen deux yeneen trois mois pourquoi te ñun ñëpp a ngi ubbi tous les hôtels sont muy mu maintenir les mêmes personnes qui étaient dehors en train de manifester trois mois encore au chômage technique est-ce que est-ce que ça c'est normal et man Béranger j'interpelle le président de la République j'interpelle directement le président de la République pour mu am un œil regardant au King Fahd il faut que le président de la République puisse prendre son courage à deux mains et prendre des décisions fermes parce que ñiy liggéey foofu non seulement ay sénégalais lañu ay doomi dëkk bi lañu tey bi leen président de la république soxlaa ñoom ñoo génn voté ko am ci moom yaakaar am ci moom coofeel kontaan nag ci moom parce que dafa jëloon ordonnance de décision bii mu jël récemment pour ne leen na patronat bi fay soixante-dix pour cent loolu ñu rafetlu ko mais tey li fa xew tey mooy. jaay doole parce que teguñu ko ci charte teguñu ko ci loi parce que tey loi à deux mesures mënul am une justice à deux mesures ne peut pas exister dans un état de droit tey mënoo liggéeyloo nit trois mois bàyyi nit mu toog ci biti trois mois ba pare kooku ne la ñun d'accord toogloo ngeen ñu trois mois ci biti mais am na ñu ne ci biir nañoo ñu génn ñun ñu dugg après ñu def un roulement yéen ngeen lànk di seet di xool kuy wax ca patron ba lu baax moo fay liggéey ku ci waxul ki nga du sax du sax wax lu baax ak lu bon ah. xam nga défendre te intérêts mais c'est légitime. Mm-hmm. on est dans une démocratie. pourquoi aujourd'hui nous devons aujourd'hui être des gens yoo xamante ne dañu war a siboor nit. pour les beaux yeux de Jean ou d'un Joseph. Mm-hmm. pour que ñu mën la maintenir sur cette place-là. loolu moo jaarul yoon donc ñi li am king fat place état warul bàyyi loolu muy jëm ci kaw. mooy wax waa référence là-dessus je pense que depuis le temps maa ci def interview mais gis naa ne vraiment am na amélioration bu baax a baax baax bon vraiment di leen gën a ñaax di leen wax ne maa leen di ñaanal yàlla aussi yàlla pour bu baax la mën na ko. ay jaamam la koy defal vraiment ngeen bokk ci site yi nga xam ne vraiment nit ñi ñu leen di gën a bàyyi xel daal.